mën ko classé li nga xamante ne si nag moo di garde à vue mandat de dépôt war na ko def mu di bu ngan ngay dañuy moo tax mën a xaaraat nag ay jour yoo xam si a Euh, Bougane Gueye Dany pour ñu àtte ko ci li nga xamante ne si ne comme di loolu defoon ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax ci lañ ko war a àtte quoi mais Bougane lu ci bare bare nga xamante ne si nekk euh, amal na xoo mu nekk nag loo xamante ne si nekk rafetlu ko bu baax ginnaaw bon ko tere ci moo dem ci li nga xam moo di fële moo di sa bàkkel nan ko tere woon mais dafa dëgërante bopp ak tàgg na dem quoi looloo tax ñu euh, mujj woon ko arrêté